baax jafe-jafe yi nga xamante ne rek moom la sénégale yi di dund rawatina nag jeunesse bi dañuy toog ci plateau télé yi rek nekk fa di wax lu leen saf ba tey rek bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi nga xamante ne kii di Guy Marius Sagna di nag koy wax ne na nag jëriñ bu ñu dénk wàllum ndaw ñi jamono ji waroon naa concentré wu bu baax nag ci luy jëmaleen kanam euh, xëyu ndaw yi rawatina nag jeunesse bi nga xamante ne rek dañoo désespéré ndax bu fekkee ne résultat yi nga xamante ne rek daal di nañ koy def ci biir réew mi wërngal këpp bu fekkee état bu Sénégal année bu at at bu jot rek lii di trente mille emplois lay créer au lieu que nag mu créer emploi yoo xamante ne rek yu suffisante la te ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy soxla toll ci mille yoo xamante ne ay wuto liggéey day wane ne rek kii di gouvernement bu Macky Sall nag euh, ci wàllum Sénégal émergent da cee nasax lool moom nag la mu di xam ne ba tey moom Guy Marius Sagna bu fekkee ne nag ñoo fi nekk te trente a créer dañuy jëñax ndaw ñi bu ñu mën a dem nag bitim réew ñu jël sax mi ba tey rek la mu ne moom juróomi at yi nga xamante ne rek eh, créé nañ ci lu toll ci cent cinquante mille emplois waaye nag ci biir cent cinquante mille emplois yooyu nag ñi ko yittewoo ñu ngi toll ci un virgule yoo xamante rek jamono ji fu ñuy liggéeyee nag moom la ñuy a soxla waaye kii di Macky Sall ak nguuram rek moom cent cinquante mille képp rek la créé ci diirub juróomi at day wane nag kii di Macky Sall rek dafa daal di bu ñu jógee ko foofu nag mi nga xamante ne nag moom mooy yor solide communication bu parti bi di Pastef la mu di xam ne rek ni ki tey kii di Ayib Daffé daal dinay dem déposer trente millions nag pour jàppale bu baax kii di Ousmane Sonko wala sax pour euh, ñongal candidature Ousmane Sonko ci élection présidentielle ñu doon ma ci moom Ayib Daffé bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi nga xamante ne El Hadj dina koy yëkkati rek moo dina nag versé na tey trente millions fi nga xamante moom mooy ca caisse et dépôt de consignation i